le ni euh, ñi nga xamante ni euh, ñoo rek euh, daal di barricade wala tamit kii di président Macky Sall moom moo dal di causé na wala bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo tax moom doomam boobu di bu Sonko bokkul ci li nga xamante ni mooy ña am examen ci baccalauréat yi lenn rek moo ko waral nee na buy génn dañ koy fouetté buy ñibbi ñuy fouetté ko ba ñi nga xamante ni ñoo nekk ci école Birago Diop nekk ay ñoom ñoo ne du ñu rek daal di jàngate tant que soin bu euh, sonkoo jàng si ban jàngat nga am loolu ci père. jàngat bi euh, dafa may delloo ci image boo xam ne nii. Mhm. bi may seetaan sama télé ci video yi nga xam ni man dinaa ko gis ci net bi Macky Sall. Mhm. ak jabar ji ñu nekk aux États-Unis bëgg ci seen doom bi mu amee son sésame. Mhm. maanaam mu réussir. Mhm. ba ñu jox ko firndeel ko euh, këyit ba nga xam ne nii moo koy won ne ko ni jàng nga jàng bu mët jàng boo xam ni tuwaar fa kàll mucc ayib. Mhm. donc loolu la may fàttali ñu bëgg ca lool muy ndey ji bàyyi ji ci seen doom la nga xam ni nii njàmbaaram moo ko indi ci njàng la. njàng ma. ba mu am kayit kooku nga xam ne nii xam nga bac sax dafa nekk ci situation boo xam ne bu gone di jàng jóge ci élémentaire war a jëm ci classe yi nga xam ni nii ñooy diggu doomu mhm. alors won ne ko am nga capacité yoo xam ne nii wax dëgg fa yàlla mën na la may nga yokk sa jàng ci boo ko bëggee mhm. sabablu ko mhm. muy lay yóbbu foo xam ne nii du def lu mooy mbégte ci njaboot gi donc na Macky Sall kontaan moom Marème fay Sall mm-hmm. kontaan ci seen doom loolu la ko war a Sonko waree am ci biir këram parce que nag dafay mel ni kumba am ndey ak kumba amul ndey boo koy seet mm-hmm. xoolal loraange jooju ñu ko indi ci biir kër gi rien ndax politique est-ce que xam nañ xale bi lan la naroon doom ci Sénégal mm-hmm. muy ci njëriñ muy ci njàng muy ci euh, ba ci wàllu koom ci biir Sénégal parce que bu amee yóbbu ko fen fii ci Sénégal la koy amee comme ni bàyyam def ba am li mu am tey ci biir Sénégal mhm. te bu doon sago Sonko nañu toppatowee seen doom ba mu am sésame mhm. noonu la ko buggee doomam aussi tamit jàng doomam demul fen di jàng ji kale ma ngi nekkoon États-Unis ba am li mu am mhm. moo ne Sonko yeyoo na doomam tamit dem États-Unis mhm. jàng fa ba mu tël tey mu woo baay ji mu ñëw fekk si ko ñu jox ko César mhm. maanaam diplôme bi nga xam ni mooy wone ni njàng bi mët na te eh, mën na jàll fii ci kaw mu neex ko mu bëgg ko mu yokk xam-xamam mhm. waaw léegi buñ ko gàllankooree ci loolu perture bi xale bi psychologiquement ba nga xam ni day fayu sës ci biir jàngat kooku politique jaru ko parce que xale bi mën na nekk intére Sénégal. Mhm. gannaaw bi nga xam ne nii intérêt baayam la. Mhm. te dafa am waajur comme kale ni mu amee ay waajur tey mu bëggal leen ñoom ñu kontaan mais nañ njukkal googu parce que kenn Sénégal bu nekk bu doon sa sago tey muy ngay jigéen di góor sa doom day dégg wiiw ba ni yàlla ji mëtalee jàggam la muy doon mu doon ko mhm. pour njëriñu Sénégal pour njëriñu Euh, askanam et pour njëriñu encore ay woy waajuram ñoom ñoo ci njëkk ni ko bàyyam amee mhm. tey ba doon li mu doon tey muy dugg ci politique bi tey nag Sonko dadul politicien mhm. kon la xam lu mu xam mhm. jàng alxuraan nekk na ndongal daara Sonko dem na ba nga xam ne nii sax moom daara ci boppam daf ko def ci biir këram du fii am na fu mu jóge mhm. am na fa mu nekkoon am na ndey am na bàyyi comme ñoom ñi nga xam ñoom la jàkkaarlool mhm. donc la ñu yéene seen bopp nañ ko ko yéene ba ci njabootam politique jaru ko mhm. alors Ousmane Sonko toogaat na tamit di tendre la mais ki nga xamante ni mooy euh, président Macky Sall ndax nee na euh, képp koo xamante ni yaa ngi ci nekk responsable APR rek mi ngi leen tendre la mais à ce que ngeen ñëw liggéey waaye tamit mi ngi sàkku ñi nga xamante ni ñoom la seen loxo daal di set ngir ñu ñëw rejoindre ko ñu liggéey li nga xamante ni mooy Sénégal. waaw looloo ko war te de loolu sax day dindi tuuma. Mm. parce que pour ñoom day Sonko dafa soxor dafa lii. mais ñëpp jàppoon nañ ne Ousmane Sonko dana woon du toog wala boog du def jotaay ak ki nga xamante mooy Macky Sall jamono ji gis nañ ne mi ngi wut négociation pour gisante ak Macky Sall toogaat na léegi ne tendre naa laa mais ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ci APR sa seen loxo set ndax jàppoo ni instant bi dafa commencé di sonn wala tamit muy ñaan njekk ci ki nga xamante mooy président. <laughs> kon ñàkk xam Sonko la wallahi yàlla bi ñu tiim ñii mu seqal rek lay xalaat mais pour moom mu sonn ba mu jare ko di tendre la main mais d'ailleurs sa boo amee ko war a la main je pense que c'est le président de la République. mon père changé de discours quand changement de discours daf koy wan ne ko man nit dong la. Mm-hmm. soxoruma ñaanuma bonuma ba mm-hmm. xam ne nii damay doxal mbañeel sama diggante ak yow. Mm-hmm. parce que ñoo bokk Sénégal. Mm, fàttewul ne mag yi am na lu mu fi def waaye Macky it na fàttaliku ne doomu Sénégal la jàkkaar lool mm-hmm. waaw loolu moom moo fi ne bu ko nit ñi dëkkal fu ñu waru ko dëkkal mm-hmm. dëggoo mooy wax ni le Sénégal est devenu une république des interprétations mm-hmm. loolu mooy indi bu nit waxee rek nga jël ko féetale ko fenn te tekkeegul sax wax ci wala ñu laaj boroom wax ji ba xam lan la bëgg wax ci loolu pourquoi démb mu waxee nii tey mu ngi waxee nii loolu yëpp dafay dindi dindil ci askan wi li nga xam ne nii ñàkk dégg mooy tax ñu ko dëkkal foo xam ne nii dëkku fa mm-hmm. won leen ni it ni ku yaru kuy mën cëral nit politique jarul yenn yi dina koy faral di wax mm-hmm. nañu seet loolu baat boobu pourquoi mu wax loolu ba pare te duñ ko seppi ci biir wax yi mm-hmm. lu muy fa mu gën a tàng rek la ñu kii jaadu na mu tàngal parce que en politique dafa am waxu politique. Mm-hmm. ak wax joo xam ne juridique lañ koy àtte boo fabee yëpp jaxase ko day salfaañoo. Mm-hmm. parce que Macky ne seet ba mu ko seet ak Abdoulaye Wade lu mu fi doon wax s'il refuse de quitter euh, lu le, le palais le de la République on va l'extirper. Mm-hmm. donc dañuy dem. déloger ko maanaam génne ko génne ko ci biti ba mu xam ni ñun askan wi am nañ fi droit am nañ fi yoon mhm. waaw wax jooju mi ngi fi tege comme dang danku dege ba tey ñu koy fàttali ko mhm. waaw kon nag loolu wax jooju moom ba ko mag ki waxee interprétation ba kon vous êtes vous êtes d'accord ci ay gatsa gatsa ay je vais mettre le pays à un chaos indescriptible loolu yëpp vous euh, êtes d'accord de cela d'abord je viens ci gatsa gatsa boobu nga tudd léegi uh-huh. eh, loolu mooy loo ma def ma delloo la ko ok lu tax loolu ñun ñëpp bokk yam soo ma joxul sama cër ma xam ko du ma la jox sa cër ki la war a jox mburu <laughs> bu xëyee lànk ne la du la jox mburu loo koy wax te mu yore sa koppar lan nga koy wax ak tu as droit à ton mm. pain mm. comme tout le monde d'ailleurs tous les sénégalais ont droit chaque matin à leur pain loolu tax yàlla di leen jox xaalis bañ koy amee mm-hmm. wala ñuy jëflanteeg euh, ak nit koo xam ne nii mm-hmm. ci dëgg-dëgg mm-hmm. dañ ko joxal joxalante ba fin mois jot ñoom ñu fay ko per ci biir kàddu Ousmane Sonko démb ñu ngi dégg mu naan euh, président Macky Sall am na loo xamante ne mu ngi koy waajal ci man euh, élection euh, xale yi lañu doon bàyyi ñu def seen i examen puisque examen yi pare na am na loo xamante ne mu ngi koy waajal ndax teg loxo bi la père. non xam nga loolu. Mhm. ba tey dafa bokk ci léebu yi.